mbokku jullit yi mbokku taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ci ndigalu sëriñ muntaxa basiru mbàkke xalif général des mourides yal na fi yàgg lool te ànd ak wér ci ndigal ak kilifteefu sëriñ cheikh ahmadou mbàkke xalifa sëriñ abdul xaadir mbàkke xaadima rasool njabootuk sëriñ abdul xaadir mbàkke ñoo am mbégte di yëgle màggal gi nuy amal at mu nekk jagleel ko quatrième xalif général des mourides sëriñ cheikh abdul xaadir mbàkke ibnu cheikhul xadim di bésu màggal ak ñaanal imaamu imaam yi fukki fan ak ñett ci weeru septembre 2018 ca touba kër sëriñ abdul xaadir ak juma programme bi ren nii lay tëddee gannaaw njàngum alxuraanul karim xasida ak i bernde ñeenti fan ci weeru septembre dinañu amal waxtaan di table ronde ca Touba Soura kër Serigne Touba Yónni Mbàkke juróom-benn fan ci weeru septembre ca kër Serigne Abdoul Ahad Mbàkke ibnu Serigne Abdoul Xaadir Mbàkke ca Gédé jàkkaay Serigne Abdoul Xaadir juróom-ñeenti fan ci weeru septembre ca Touba Njenne kër Serigne Mbàkke Jenn fukki fan ak benn ci weeru septembre conférence su sët yi fukki fan ak ñett ci weeru septembre di bésu màggal gi ci ëllëg sa fukki fan ak ñeent ci weeru septembre di cérémonie officielle bi Serigne Cheikh Ahmadou Mbàkke xalifa Serigne Abdoul Xaadir Mbàkke Xaadimu Rasuul ak mbooleem njabootug sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke di ko yëgal mbooleem njabootug sëriñ Tuubaa gi mbooleem ñi ñu bokkal maam maaram mbooleem cheikh yu yoonu murit mbooleem taalibe yi mbooleem këru diine yi ci réew mi ak mbooleem ñi wëllarante woon ak sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke ibnu Cheikhul Xadim muy bésub fàttaliku bésub ñaanal bésub sant imaamu imaam yi quatrième xalif général des mourides di bésu nangu ñaan ni ko sëriñ Moustapha Abdul Xaadir Mbàkke di waxe waajal leen bagaan yi te duy si ci xéewal gi ci barke cheikh Abdul Xaadir Mbàkke ibnu Cheikhul Xadim